جميع خلقه لم يعل خلق أبدا من فوقه وباطن أدنى من الوريد بعلمه وحفظه العتيد هو العزيز لا يرى مجانبه من غالب الله فرب غالبه ذو قوة فكل أمر قد قضى يوقعه إن شاء بأرض أو فضى وهو الحكيم كل أمر وضعه في الكون والشرع إله موضعه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa xabiibinaa wa shafiicinaa wa wasiilatinaa ilaa rabbinaa mabuusun raxmatan lil caalamiin wa calaa aalihi wa saxaabatihi ajmaciin ammaa bacd salaamu leen di nuyu di leen ziyaar di leen jox kenn ku ñu nekk seen wàccuwaay di ñëwaat ci émission bu bees bi te mooy al adab ci seen rajo bii di risaalatul podcast ngeen ci ànd ak seen mbokk Issa Samb ñu war a ñëw incha allah ci li nga xam ne ne moom mooy teggin al moom mooy teggin ci li nga xam ne moom mooy làkk wolof bu fekkee ci làkk français nag mooy les règles de bonne séance wala les règles de bien séance incha allah tey moom nañ war a waxtaane wala ci émission bi moom nañu war a waxtaane ndax solo bi nga xam ne ne moom la am ak solo bi nga xam ne moom la ko boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim jox nga gis ne ne am na ci ñoom ñoo xam ne lu ci mel ne Cheikh Salah Tijaani nga xam ne mu'assir la dafay wax ne imma adab wa imma adab soit nga am teggin walla nga am meru suñu boroom tabaraka wa taala kon teggin mooy loo xam na ne la budda munta ñàkk nit ki am ko ci diggante moom ak boroomam ci diggante moom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu tamit ci diggante moom ak mbooleem mbindeef yi naka noon tamit ak xayawaan yi mooy animaux yi naka noonu tamit ak eh, eh, ni nga xam ne mooy les choses inanimées lu ci mel ni garab yi lu ci mel ni xeer yi ilaaxiri kon teggin boobu buñ ko waxee ak importance bi nga xam ne borom xam-xam yi boo demee ci téere yi dañ koy utal sax bunt boo xam ne dañ koy wooyee adab teggini naka noonu tamit borom euh, moo xaqiquuna yi wala ahlu tasawuf nga xam ne ñooy suuf yi tamit buntu teggin tamit dafa nekk loo xam ne ne dañ ko jox cër di ko traité di ci insisté booy xool sax ci ulamaaw yi rahmatullah alayhim ñoom ñooy ñu ci gën a ñooñu ñu ci gën ñu ciy gën a insister ndax bu fekkee lu ci mel ne wala euh, maawul euh, faqi yi ak euh, ñu mel ni ñoom dangay gis ne ne lu aju ci teggin dañ koy dugal ci yenn yi dañ ciy dugal ci li nga xam ne ne moom mooy yoo xam ne dañ koo sopp waaye bu fekkee ci waa nitu tasawuf loolu dafa nekk ponk boo xam ne nit ki bu ko amul daram du jag ci wàllum Euh, suluuk maanaam ci wàllum cheminement jëm suñu borom tabaaraka wa taala ndax teggin boobu mooy loo xam ne nit ki noonu la war a meloo ba nga xam ne ne lépp loo xam ne dafa aju ci xadara yàlla bi mooy teewaayu suñu borom tabaaraka wa taala mu mun faa ne naka noonu tamit yoonu yàlla mën a jag ak teggin bi nga xam ne moom la war a am ak ñi nga xam ne ñoom lay tasantal ci ay nitu yàlla naka noonu tamit ñoo nga xam ne moom lay am jamono ñoo xam ne ne moom lay euh, tasante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala di teewlu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon boo déggee loolu li may expliquer nii yëpp da nga ciy comprendre ne teggin dafa nekk loo xam ne ne lu oyof la ci làmmiñ waaye nag lu diis la ci wàllum maana maanaam ci wàllum signification kon lan mooy teggin ndax teggin moom mooy ñenn ñi nuñ ko jàppee moom mooy dañuy toog ñuy dàjj diine bi sa wet maanaam ñuy wax ci diine bi loo xam ne du noonu nga noppi parce que da nga am teggin est-ce que loolu la est-ce que teggin moom mooy nga gis loo xam ne ne war nga koo mën a faj waaye nga ne da nga am teggin ci faj ko ndax loolu mooy teggin ndax teggin tamit moom mooy heure julli jot nga war a julli waaye nga nekk ci situation yoo xam ne ne da ngaa am kersa nga ne dangay doxalee teggin ba waxtu bi romb ndax loolu mooy teggin loolu boo ko déggee da ngay xam ne ne loolu du teggin ndax loolu yëpp dafa contraire ak li nga li nga xam ne mooy lislaam li nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu fekkee loolu moom mooy li gën a siiw ci lu nit ñi xam ci teggin kon lan mooy teggin teggin da ngay xam ne ne dafa yaatu selon définition moom mooy lan nga war a def ci situation bu ne lan nañ sopp nga def ko bu fekkee nga nekk ci duus yi lan nañ sopp jamono jooju nga def booy dugg ci douche situation yooyu lan mooy teggin bi loolu dinañ ko jàng naka noonu tamit bu fekkee da nga nekk sa biir kër lan mooy tegginu nekkin bi nga xam ne moom nga war a nekkee ci biir kër gi bokk na ci teggin yi tamit bu fekkee nit ki dafa la nuyu yan teggin nga war a amee ci tontu bi nga koy tontu wala nag nga war a jëfalante ak moom booy jaamu yàlla tamit yan teggin nañ sopp ci yow nga doxalee ko ak moom suñu borom tabaaraka wa taala yan teggin tamit nga war a am jamono yi nga xam ne ne yaa ngi tuur ndox wala yaa ngi nekk di e, xayta et cetera et cetera et cetera kon loolu da ci ciy comprendre ne teggin. moo ngi aju ci situation bu nit ki nekk lan moo fay teggin mu doxalee noonu maam lan moo ci teggin mu doxalee noonu ci situation boobu noonu dañuy wax tamit benn mbir yonent bi alayhi salaatu wassalaam da gis ne dafa wax ci xadiis Muaz ibnu Jabal radiallahu taala anhu te imam ak imam Muslim riwaaye ko ñu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ko musoon togg maanaam dafa mësoon jël dafa mësoon war li nga xam ne moom mooy euh, mbaam daal di koy supporter ba ko supporter mu daal di wax yon mu daal di wax ak Muaz ibnu Jabal radiyallahu taala anhu mu ne ko yaa Muaz yow Muaz tadri maa xaq maa xaqullah ala al ndax xam nga lan mooy àq suñu boroom tabaraka wa taala ci jaami wa ma xaqul ibaadi eh, ala allah ndax xam nga tamit lan moom mooy àqu jaami ci yàlla xaala mu daal di wax xultu ma daal di wax allahu wa rasuluhu alam yàlla ak yonente moo gën a xam li nga xam ne moom nga may laaj ni xaala mu daal di wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax ni fa inna al xaq xaq allah alal ibaad li nga xam ne moom mooy àq suñu boroom tabaraka wa taala ci jaami an yaabudullah mooy ñu jaamu yàlla wala yushriku bihi shay'an ñu bañ ko bokkaale ak ak dara loolu mooy àq suñu boroom tabaraka wa taala ak jaami wa xaqul ibaadi alallah azza wa jal ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jaami ci suñu borom tabaraka wa la an laa mooy mu bañ leen mbugal muy bañ a mu bañ a man laa yushriku képp koo xam ne ne bokkaale woo bii shay'an bokkaale woo ko ak dara kon loolu da gis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii da cee wax ci lu aju ci wàllum jaamu yàlla ak bokkaale yàlla moo tax nga gis ne dafa wax euh, suñu borom tabaaraka wa taala ci wàllum bokkaale yàlla du ko diisal moo tax nga gis yonent euh, suñu borom tabaaraka wa taala di wax ne zalika bi anna allahu huwa alxaq wa anna ma duuna min duunihi huwa albaatil loolu mu ngi ko wax ci suratul xaj mu ne li am ba des moom mooy ne yàlla boroom bi tabaaraka wa taala huwa alxaq moom mooy dëgg bi wa anna ma yad'una te lépp loo xam ne ñoo ngi koy woo min duunihi lu wuteeg moom ñoo ngi koy ñaan lu wuteeg moom huwal baatin loolu mooy neen loolu moom mooy caaxaan mu daal di wax tamit ne inna allahu laa yaxfiru laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duuna zalik liman sha liman yasha te loolu mu ngi ko wax ci suratul nisa mu ne suñu borom tabaaraka wa taala li am ba des moom mooy lan ne moom day jéggale mboolem mbir yi dafay nekk lu koo xam ne day mboo day jéggale mboolem mbir yi wala lu ko neex ba mu des li nga xam ne moom mooy moom mooy bokkaale lépp loo xam ne bokkaale la suñu borom tabaaraka ko taala moom ci boppam moo waxal boppam ne du ko baale waaye tamit mu wax ne wala xad uxiya ilayka wa illa alladina min xablika la in ashrakta la yaxbatanna ahmaaluka wala takunanna min alxaasirin mu wax yonent bi alayhi ci suratul zumar mu ne waxiw li ca dëgg dëgg dëgg waxiw nañ la dee nañ la yow ak ñi la jiitu woon ne képp koo xam na ne danga ma bokkaale boo leen ma bokkaalee dinaa màbbal seeni jëf te di ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy aji perte yi te lu ñu xam ci yonent yi mooy yonent yi du ñu bokkaale kon buy wax ak yonent yi muy daraja bi gën a kawe kon ñi gën a suufee waxaalewuñu leen loolu yëpp nag boo ko déggee liñ ci génnee ci njàngat mooy ne bokkaale suñu borom tabaraka wa la du teggin dafa moom moo moo gën a contraire ak teggin bu ñu war a doxalee ak suñu borom tabaraka wa wa taala loolu moo tax incha allah tey ci jotaayu tey bi ci lu aju ci xadis bi la xam dafay wax ci bokkaale yàlla ak jaamu yàlla dañuy njëkkee ci bokkaale yàlla te mooy point wu tawxid tawxid nañuy jàng njëkk jàng ci lan lan mooy àq suñu borom tabaraka wa taala ci bañ ko bokkaale ci point yooyu ni koy traité moom mooy dañ koy traité ci ñeenti poñ premier poñ bi ma dañuy wax ci al ixlaas lillah sell sellal ngir yàlla mooy lépp loo xam ne say jaamu yàlla dinañ ci ñëw wal muraxabatillah wa muraxabatullah mooy nga bàyyi xel di fuglu suñu boroom tabaraka wa taala wa ñaan ñeenteel poñ bi ñu waxtaan ci at tasaw euh, at tasawwir at tasawwiru moom mooy li nga xam ne moom mooy melale dinañ ci ñëw kon jëm ñeenti point yooyu nañuy jàng incha allah moom mooy al ixlaas lillah mooy sellal suñu boroom tabaraka wa taala jaamu yi nga xam ne moom nañ koy jaamu wal murahabatullah fuglu suñu boroom tabaraka wa taala wal daawa li nga xam ne moom mooy ñaan li nga xam ne moom nañu war a ñaan suñu boroom tabaraka wa taala wal taswiir li nga xam ne moom mooy suñu boroom tabaraka wa taala kon ñeent poñ yooyu nañuy jàng premier poñ bi moom mooy al ixlaas lillah sellal suñu boroom tabaraka wa taala wala sellal ngir suñu boroom tabaraka wa taala deuxième bi moom mooy muraxabatullah fuglu suñu boroom tabaraka wa taala troisième bi moom mooy addu'a ñaan quatrième bi moom mooy taswiir li nga xam ne mooy melale bi nga xam ne ne nit ñi moom la ñuy melale suñu borom tabaraka wa kon nga gis ñeent poñ yooyu noonu day dugg ci àq suñu boroom tabaraka wa taala lan la bu fekkee al ixlaas lillah sellal bi nga xam ne moom lañu war a sellal suñu borom tabaraka wa taala suñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne qaala allah tabaraka wa taala ana arnal ana yi man maa gën a yayoo ñi nga xam ne ne wala man maa gën a dañ man ma gën a indépendant ñi nga xam ne ne moom nañ may bokkaaleel ani shirk ci bokkaale mi nga xam ne nit moom nañuy moom nañuy bokkaale man amila amalan ashraka fiihi maahi ayri tarak taraktuhu wa shirkahu mu ne képp koo xam ne ne dangaa jëf-jëf boo xam ne ne danga ma ci bokkaale ak kenn yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi def li ngay def yaa ngi saraxe et cetera mais li la li tax nga koy def mooy ne diw mii ak yàlla nga ci bugg boole wala yaa ngi yaa ngi julli mais yaa ngi ciy boole leneen koo xam ne ne danga ko ciy boole ne yàlla ak diw bu boobaa dama lay bàyyi ak ki nga xam ne moom nga ma bokkaale maanaam boo ne yàlla ak diw xamal ne yàlla génn na moom yàlla moom gedd na li nga xam ne moom nga ko bëgg cërale ndax dafa nekk koo xam ne ne nanguwul di bokk ak kenn li nga xam ne moom mooy li mu moom li mu yayoo te mooy jaamu yàlla bi nga xam ne moom lañ ko war a jaamu naka noonu tamit yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci yéene di wax ne ala uxbirukum premier xadis bi nga xam moom lañ njëkk a liir eh, imaam eh, muslim riwaaye na ko deuxième xadis bii ñu liir ñu ngi ko jëlee ci eh, abu saïd al xudri radiallahu taala anhu mu ne ana nabi salallahu alayhi wa sallam annahu xaal ala uxbirukum bima huwa axwaafu alaykum hindi min almasihi dajjal mu ne ndax duma leen xibaar ci loo xam ne ne moom laa gën a ragal ci yéen ka masiixu dajal lu ko gën a garaawal li nga xam ne moom laa gën a ragal ci yéen du masiixu dajal kese li ma gën a ragal ci yéen moom mooy lan al shirkul xafiyu moom mooy bokkaale bu sew bi lan mooy bokkaale bu sew bi mu ne an yaquumu rijaalum yu salli mooy nit taxaw wala góor kenn rek taxaw di julli fa yuzayyinu salaatuhu lima yara minal minal nazari rajulin te loolu imaam eh, ibnu maaja rahimahullah soloo ko mu ne mooy nit ki taxawal di taxaw di julli rafetal anam bi nga xam ne moom lay jullee waaye lan moo ko taxa rafetal li nga xam ne moom lay ni muy jullee mooy nit ñi xool bi ñu koy xool kon loolu dañ ciy gis ne ne ñaari façon bokkaale yi dafa feeñ ci ñaari xadis yi premier bi moom mooy nga bokkaale bu yàlla bokkaale bu leer boo xam ne moom amul benn sikk sàkk nga xam ne yàlla ak diw nga ciy wax wala yàlla ak nangam nga ciy wax xeer bi wala lu mu mën ci doon loolu bokkaale boo xam ne ne amul bu ko gën a rëy deuxième bi nag moom mooy bokkaale bu sew bi moo tax nga gis ñu nitu yàlla yi di wax ne ñaari façon bokkaale moo am bokkaale bu mag ak bokkaale bu ndaw mooy boo xam ne da ngay jël yàlla boole ko ak bindeefam ci loo xam ne ne yàlla moo ko moom moom kese bokkuk ak kenn lu ci mel ne jaamu yàlla yi beneen partie bi nga xam ne ne moom mooy bokkaale mooy bokkaale bu ndaw mooy bokkaale bu sew tax mu sew parce que du feeñ dafay nekk loo xam ne dafay nëbbatu mooy nit ki di jaamu yàlla di utiliser loo xam ne jaamu yàlla la waaye au lieu que mu nekk pour yàlla waaye mu nekk pour mbindeefam yi maanaam pour mbindeef yi gis ko te loolu la olof di woowee li nga xam ne moom mooy ngistal mooy ne yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi natt azaka yaa ngi def lu ne waaye nag li la ko tax tax a def yëpp du daara lu dul am cër wala am gisin bu rafet ak gisin bu màgg ci bëtu nit ñi loolu nag lu jar a moytu la ndax dafa nekk loo xam ne ne bokkaale la waaye bokkaale bu ndaw bokkaale bu làqatu boo xam ne nit ki sax mën na cee bañ a bàyyi xel donc liy teggin ci àq boobu ci ixlaas rafetal ak sellal jaamu yi ngay xam ne moom ngay war a jaamu suñu borom tabaraka wa taala mooy comme li mu wax wa ma umiru illa li yacbudullah muxlisina lahu diin digaluñ leen lu dul ñu sellal nekk ñoo xam ne dañuy sellal jaam bi mi nga xam ne moom nañuy jaamu suñu borom tabaraka wa taala kon loolu mooy lu aju ci sellal li nga xam ne mooy say jaamu yàlla mooy sellal ngir yàlla kon lépp loo xam ne ne jaamu yàlla la sellal ko nga def ko nga fexe ba nga xam ne ne sa biir xol doo ko def lu dul ngir yàlla tabaraka wa taala waaye tamit bul jël yàlla di ko associé ak keneen ci julli ci jaamu yàlla bi nga xam ne moom ngay jaamu yàlla ndax moom dong moo ko yeyoo du yonente bi sallallahu alayhi wa sallam walliw yi du malaaka yi du keneen ndax lan ndax yon suñu borom tabaaraka wa taala dafa wax ne lépp loo xam ne ne danga ma jël bëgg ma bokkaale ak moom ma bàyyi kaat cër bi bu fekkoon sax dafa wax ne man damay dàq kooku wala kooku ci boppam euh, du bokk waaye dafa ne man ci boppam may génn ci mbir yi bàyyi leen ak seeni mbir te yàlla lu mu génn lu nekk rek musiba rek moo fa mën a moo fa mën a am loolu moom mooy al ixlaas lillah premier point bi moom mooy sellal jaamu yàlla bi ngay jaamu ngir yàlla deuxième point bi incha allah mooy muraaxabatullah mooy fuglu suñu boroom tabaraka wa taala loolu ci àq suñu boroom yi la tabaraka wa taala ndax lan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis boo xam ne jëlee nañ ko ci eh, imam tirmisi rahimahullah mu wax ne ittaxillaha xaysu ma kunt mu ne fépp foo mën a nekk rek ak foo mën a ne ci duus bi boo nekkee Europe nga xam ne ne foofu amoo fa ay mbokk yow kese yaa fa nekk amoo bàccen amoo tonton ba fa nekk amoo ndey amoo baay amoo rakk amul kenn koo xam ne moo ngi foofu koo xam ne ni yaa ngi koy ruus ci def yenn njombuteef yi la xam ne ne ñu la wër yëpp ay jàmbur nañ fi mu ne loo mën a def tamit kenn du ko xam wala say mbokk duñ ko yëg boo tollee ci situation yooyu noonu ittaxillah ragalal yàlla boo nekkee ci entreprise bi wala bërëb bi ngay liggéeyee nga gis ne ne fi nga nekkee kenn mënu laa surveiller patron bi mënu laa surveiller naka noonu tamit employé mënuñ laa surveiller te mën nga def li ngay def te kenn du ko yëg bu boobaa boo tollee foofu it ittaxillah ragalal yàlla boo nekkee tamit koo xam ne ne yaa ngi am benn kër kese boo xam ne ne xëy na ci àll bi la ne nga xam ne ne kenn mënul surveiller say dem ak say dikk boo tollee ci situation yooyu la xam ne lu la neex def yor sa oto la ragalal yàlla boo nekkee ci douche bi tamit nga xam ne ne kenn du la fa fekk yow tamit it la ragalal yàlla foo mën a nekk rek na nga fexe ba nga xam ne ne ragal yàlla taxawaa na nekk ci yow ragal na nekk ci yow moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam daal di wax ne la ittaqillah xaysuma xaysuma kun ragalal yàlla fépp foo mën na ne amul benn endroit boo xam ne ne yaa ngi fa nekk rek lu dul ne li ci gën a war li ciy nekk àq suñu borom tabaraka wa taala te di fa nekk téggin moom mooy nga ragal suñu borom tabaraka wa taala loolu boo ko déggee nag dangay ngay comprendre ne lépp fépp fu fu waay mën a nekk rek suñu borom tabaaraka wa taala mu ngi koy gis mu ngi xam ci lan la nekke damay faral di wax ne ba sax melentaan boo xam ne ne melentaan yu ñuul yooyu la xam ne ne leen dañ leen xam même bu ñu demoon ba nekk guddi di dox ci guddi ci ker la ne kooku déjà dafa ñuul guddi gi dafa ñuul ker gi dafa ñuul paa mu teg amul benn paa boo xam ne ne melentaan boobu dina ko teg lu dul ne yàlla xam na ci lan la ne xam na paa bi mu teg kon lan nga xalaat ci nit ci boppam kon fépp foo mën a nekk rek danga nga la leer na ne yàlla mu ngi lay mu ngi lay gis mooy lu yoon sa sa wax ne ci ba muy wax al ihsaan ne an taxabudullah wa ka annaka tara fa in lam takun taraahu fa innahu yara an tara nga jaamu yàlla ba mel na yaa ngi koy gis fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak même boo ko te gis tamit na nga xam ne moom mu ngi lay gis kon loolu rek doy na ci nit ki mu bàyyi xel suñu borom tabaaraka wa taala li lay may nag euh, muraaxaba boobu euh, ngay bàyyi xel suñu borom tabaaraka wa taala ci euh, mbooleem looy def bu fekkee parce que nit ki commencement bi mën na ko bañ am waaye bokk na ci li nga xam ne moo lay ciy dimbali mooy ngay zikkar lu bëri si bu mu mënti doon. waaye sixa bi ci gën a gaaw mooy allah allah allah allah nga koy wax lu bëri amul lim nga koy wax lu bëri day tax ba nga xam ne ne li nga koy répété noonu day dem ba sax sa biir xol la xam ne ne suñu borom tabaraka wa taala dootoo amati la mooy fàtte yëgati ci suñu borom tabaraka wa taala loolu mooy quatrième point bi ci mooy muraaxaba bàyyi xel suñu borom tabaraka wa ba ci sax transaction yi yaa ngi def benn transaction xam nga ne fi mu ne transaction bi li may def nii eh, wor am na ci te ki may jëflante yëgul te kenn yëgul sama digganteeg moom la comme moom yëgul mais yàlla yëg na mag yàlla rek ñoo xam ne ne fi mu ne lii nii may def nii wor da cee am ak eh, sàcc da cee am ndax sàcc bi gën a garaaw mooy sàcc koo xam ne ne du xam ne ne sàcc nga ko nga xam ne yow rek yaay xam ne ne sàcc la mais keneen ki du ko xam même boo tollee ci situation yooyu tamit ittaxillah na nga ragal yàlla tabaraka wa taala kon commerçant bi naka noonu tamit employé bi naka noonu tamit menuisier bi menuisier bi boo xamee ne lii marché bi mënoo koo jël wala tailleur bi marché bi mënoo koo jël du pare à temps la ragalal yàlla ndax yow rek yaa xam ragalal yàlla bul jël marchandise bi wala bul jël engagé liggéey boobu après waxtu bi nga waxoon jot waa ji ñëw nga koy naq-naqal di ko xaar di ko xaaral ba suba te xamoon nga ne lii nii duma ko mën a def à temps kon foo mën a nekk rek ragalal yàlla kon loolu da gis ne ne euh, fuglu suñu borom tabaraka wa taala lu yaatu la moo tax nga gis euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax daan wax abdullah ibnu abbas jàngal ko ne ko ihfazillah yahfazka ragalal yàlla wala euh, fuglul suñu borom tabaraka wa taala bàyyil xel suñu borom tabaraka wa taala bu boobaa dina la bàyyi xel jamono yi nga xam ne da nekk ci tartar wala jamono yi nga xam ne da nekk ci bànneex bàyyil xel suñu borom tabaraka wa taala boo nekkee ci xat-xat suñu borom tabaraka wa taala bàyyi la xel wala nekk ci say mbir yéwénal say mbir ndaxte ba ngay nekk ci bànneex ba ngay nekk ci ab oyof oyof yaa ngi loon bàyyi suñu xel tabaraka wa taala kon loolu jar a bàyyi la ci bàyyi xel suñu borom tabaaraka wa taala boo ko déggee da ngay gis ne lu lu yaatu la loo xam ne mënuñ ko waxtaan ci benn jotaay troisième point bi incha allah moom moy ak du'a ñaan ñaan lu ama am solo la lu ama am solo la def nañ benn émission boo xam ne tuddee ñu ko du'a wu subh euh, am na quelque yoo xam ne wax nañ ko ci ku ci bëgg mën na ci dellu ci fichier yi ci wàllum ñaan nag li ciy teggin mooy insisté li ciy teggin mooy insisté saa yoo ñaanee ngay insister euh, ci li nga xam ne moom ngay ñaan ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ci xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la euh, mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne jaabu li ahadikum dinañ nangul képp kenn ci yéen maalam yaqjal fii ak yuqatul la mooy alajli alajlu moom mooy yaquulu muy wax daawtu ñaan naa la mooy mooy ñaan naa falam yustajaaba lii te kenn nangulu ma maanaam ñaan naa suñu borom tabaaraka wa taala te nangu lu ma fii ak waxaloo lool waxagoo lool rek jàppal na dinañ la ko nangul bu fekkee da ngay ñaan oto bu fekkee da ngay ñaan kër bu fekkee da ngay ñaan mbir fii ak découragé woo rek wax ne ñaan naa te mayuñ ma jàppal na dinañ la ko may nit mën nañ ñaan benn mbir boo xam ne ne 40 ans après la ko am nit ñaan na benn mbir boo xam ne ne 50 ans après la ko am nit ñaan na mbir boo xam ne ne 15 ans après la ko am nit ñaan na benn mbir boo xam ne ne 15 minutes après la ko la ko am kon képp koo xam ne ne yaa ngi ñaan bul ne nanguluñ ma wala gisuma li may ñaan rek kon naa bàyyi li may ñaan waaye li nga war a def moom mooy insister teggin bi moom mooy insister ci ñaan bi nga xam ne moom ngay ñaan suñu borom tabaraka wa taala jàpp ko ne moom rek nañ war a ñaan déjà waaye boo koy ñaan bul na ñaan bi dafa yéex a nangu kon naa ko bàyyi wala nga wax yém sa sa lu wax nii ne ñaan naa te kenn mayu ma te wala kenn nangulu ma loolu boo ko waxee rek xamal ne duñ la nangul waaye fii ak waxoo baat boobu rek phrase bi tànk fii waxoo ko rek jàppal ne dogul ne suñu borom tabaaraka wa taala dina la dina la nangul te loolu xadis la boo xam ne imaam Buxaari ak imaam muslim soloo nañ ko loolu moom mooy addu'a mooy ñaan suñu borom tabaaraka wa taala loolu xaq la ci suñu borom tabaaraka wa taala ndax suñu borom tabaraka wa taala moom rek mooy maye loolu nañu war a xam moo tax moom rek nañ war a ñaan lépp loo xam ne ne ñaan la moom nañ ko war a adressé moom lañu war a tàllal suñu tàllal suñuy loxo ngir mu nangul ñu leneen ni moom mooy ak taswiir lam mooy ak taswiiru ak taswiiru moo ngi jóge ci moowu moo ngi jóge ci masdaru euh, sawara sawara moom mooy melale te mooy nit ki jël soit euh, li nga xam ne moom mooy bant wala xeer daal di koy yat yett ko ba nga xam ne ne day ndiru ak li nga xam ne moom mooy euh, mbindeefu suñu boroom tabaraka wa taala loolu dafa xaraam dafa nekk loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo da ko tere moo tax ci xadiisu euh, xadiis bi nga xam ne imaam Buxaari rahimahullah moom la riwaaye dafa wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne wala euh, euh, abil ju juhayfa dafa wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam laala nabi sallallahu alayhi wa sallam al musawwira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rëbb mooy dafa rëbb ki xam ne moom mooy kii melale mooy sculpteur voilà mooy sculpteur bi yettkat bi yonent bi alayhi salaatu salaam da koo da koo rëbb kon yonent salaatu salaam ku mu rëbb rek dalay leer na la li muy def moo tax mu koy mu koy rëbb mooy melale bi nga xam ne moom lay melale wala yatt bi nga xam ne moom lay yett moo tax mu rëbb ko yonent bi alayhi salaatu salaam daal di wax tamit ci xaris boo xam ne soloo nañ ko ci imam muslim mu ne kullu musawwir képp ko kullu musawwirin képp koo xam ne ne da ngay melale da ngay sculpter finnaar kooku safara la jëm yajalu lahu bi kulli suwarin sawwaraha nafsan fa yuazibuhu fi jahannam mu ne dañ koy boole moom yowmal xiyaam dañ koy boole moom suñu borom tabaaraka wa taala da koy boole moom ak lépp loo xam ne ne li nga xam ne moom la euh, melale wala li nga xam ne moom la sculpté boole leen ñoom ñaan ñëpp def leen benn benn benn benn ngëpp dugal leen ñoom ñëpp safara di leen buggal kon loolu nga gis ne ne lu jara maytu la loo xam ne ne am na benn xalis booy wax ne ne boo xam ne day wax ne ne da koy wax mu dugal ci ruux li nga xam moom la sculpté mu dugal ci ruux bu ko mënul mu daal koy jël dugal ko dugal ko safara kon loolu da gis ne ne sculpté dafa nekk loo xam ne ne ci lislaam dafa xaraam li nga xam ne nag moo xaram xaraame sculpté mooy lu aju ci Euh, li nga xam lépp loo xam ne day dund ci tënk lépp loo xam ne dafay dafay dund dafa xaraam nit ki sculpté ko naka noonu tamit euh, loo xam ne ne euh, comme li nga xam ne moom loo boo sculpté du am benn problème mooy lu ci mel ne yenn yi nga xam ne ne comme lu ci mel ne montagne nga sculpté montagne wala nga sculpté yi nga xam ne mooy garab yi ak yi nga xam ne moom mooy ñax yeeg yu demee noonu yooyu moom amul benn problème ndax xadiisu Abdullahi wala euh, xibaar euh, xibaaru Abdullahi ibnu Abbas bi wala asar bi Abdullahi ibnu Abbas ki nga xam ne moo ñëwoon ne ko mais man damay sama liggéey moom mooy di yàtt ak euh, yi nga xam ne moom mooy yàtt lu ma mooy sama liggéey sculpté mu ne kon maa ngi lay dénk ngay yàtt li nga xam ne moom mooy ñax yee ak yu demee noonu kon loolu nañ ciy déggee ne loolu côté boobu noonu xaraamul waaye yi xaraam moom mooy lu ci mel ne ay nag lu ci mel na ay ay ay bëy lu ci mel ne nit ci boppam nga sculpté ko lépp loo xam ne ne lii ci boppam boo ci dugalee ruu rek mu dund bu boobaa sculpté ko day daal di xaraam naka noonu tamit da ciy dugg masalawu yenn mannequin yi war nga gis ne mannequin yi ci boppam dafa xaraam waaye foog nga dind ci moom loo xam ne buñ ci dugaloon ruu du mën a dund du ci mel ne bopp bi n'est-ce naka noonu tamit ak loo xam ne ne ndigg la lay ba ndigg li ba jëm ci kaw nga xam ne ne loolu nit ki mënu koo dundaale kon loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy eh, lu wàll lu jëm ci wàllu sculpté am na beneen tamit boo xam ne dafa xaram mooy lu ci mel ne eh, benn darab wala lenn loo xam ne ne dañ ko peinture mais peinture bi ñu ko peinturé comme genre pas peinture mooy mooy dessiner mais dessin bi dafa am ombre bu fekkee dessin bi dafa am ombre bu amul ombre amul problème moo tax nga mën a am photo sans problème nga mën a eh, jël photo nit ki sans problème ndax photo ci boppam xaramul waaye bu fekkee nag dafa am ombre maanaam bu fekkee eh, lumière bu ko tiimee day créer ci moom ombre bu boobaa day xaram naka noonu tamit bu fekkee dañ koo def ci ay darab ndax darab yi parfois moom ay dessin t-shirt yi parfois moo ay dessin mais parfois dessin yooyu nga gis ne lumière bu ko tiimee day da ciy créer genre takkandeer bu créer takkandeer rek loolu dafay xaraam parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa dugg mës dugg ci néegam gis suñu yaay Aïcha defoon wala suñu yaay Fatima defoon benn darab boo xam ne ne euh, benn rido waa mooy rido boo xam ne ne dañ ko dañ cee defoon genre ay kéwala yu demee noonu mais problème bi moom mooy dafa amoon ay takkandeer maanaam la fekk nuñ ko defaree dafay créer ci moom takkandeer yow misaal sam bu mu bu mu duggee ba gis ko rek dafa daw dafa dafa dafa dëpp génnaat bañ ko laaj mu ne du dugg tànke dindiwul li nga xam ne ne moom mooy rideau bi nga xam ne moom lañ def ci ci ci néeg bi ndax malaaka yi ci boppam du ñu dugg ci bërëb boo xam ne ne statue dafa dafa ne kon loolu jara bàyyi xel na dafa xaraam nit ki di toppandoo suñu borom tabaraka wa taala ci li nga xam ne moom la bind mbindeefam yi doo jël ay mbindeefam di mel na kuy toppandoo suñu borom tabaraka ko taala di créer ay sculpture yoo xam ne ne yépp boo ci dugaloon ruu day nekk loo xam ne day day day dund day nekk loo xam ne day vivant loolu boo ko defee keroog yowmal xiyaam dañ lay sant ngir nga def ci ruu pour mu dund te ruu moom yàlla rek moo ko yor te boo ko mënul boole la moom ak li nga xam ne moom nga sculpté dugal leen safara di leen buggal kon loolu lu jar a bàyyi xel la lu jar a moytu la kon loolu moom mooy lu aju ci àq suñu borom tabaaraka wa taala kon non seulement dañoo war a sellal li jaamu yàlla niñ koy jaamu bañ ci bañ ko bokkaale ak kenn naka noonu tamit dañoo war a di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala ci mboolem mbir yi naka noonu tamit di fuglu di bàyyi xel suñu borom tabaaraka wa ci lépp lu mën a am naka noonu tamit moytu di melale suñu borom tabaraka wa taala lu yii mooy àq yi nga xam ne ne mooy dox bokk na wala bokk na ndax ñaari parti la premier bi moom mooy jaamu yàlla bi ñu war a jaamu yàlla suñu borom tabaraka wa taala deuxième bi moom mooy ñu bañ ko bokkaale tey li ñuy traité incha allah lépp day dugg ci bañ a bokkaale suñu borom tabaraka wa taala booy ñaan nga ñaan suñu borom tabaraka wa taala bañ a bokkaale ci ñaan bañ wax yàlla ak diw wala yàlla ak diw walla diw may ma loolu ci boppam dafa nekk loo xam ne dafa xaram dafa nekk loo xam ne ne euh, lu lu lu jara muytu la suñu jamono ji xam na ne yàlla rek mooy maye problème bi suñu jamono nag mooy ne boo waxee ne yàlla rek mooy maye loolu mooy bàkkaar ci suñu jamono jàpp nañ ne loolu mooy bàkkaar waaye bu fekkee diw nag boo waxee ne moom mooy maye ñu jàpp ne walla wax nga dëgg loolu yàlla nañ ci yàlla musal nañ xam ne ne yàlla rek mooy maye képp koo fi gis dafa soxla suñu borom tabaraka wa taala boo dégloo mag ñi liñ doon ñaanee mosuñoo ñaanee sax ci ne yonent bi jox ñu wala nangam jox ñu déedéet yoon saa sam ci boppam da koo tere moo tax mag ñi daawoo leen dégg mukk seen xasida yi ñu koy waxee noonu waaye kañ nañ doon ñaan suñu boroom kese nañ doon naan tabaraka wa taala daraja yeeg maqaama yeeg wërsëg yeeg yépp suñu boroom rek nañ ko doon ñaan kon nañ leen roy ci loolu di moytu yenn pas-pas yu bees yi nga xam ne ne yépp dafa wute ak lislaam comme ça suñu àllaaxira mën a jag ndax déjà suñu àdduna jagagul bu ñu seetaanee ba ñu yàqal ñu suñu àllaaxira dina ñaaw lool ci ñun kon incha allah ci jotaay bii ñëw dinañ gis yan ñooy àq suñu borom tabaaraka wa taala wala yan teggin nañu war a doxalee ci suñu borom wala yan teggin nañu war a doxalee ci côté jaamu yàlla bi nga xam ne moom nañu war a jaamu suñu borom tabaaraka wa taala kon maa ngi leen jox di dégg daje ci beneen émission incha allah ci al adab ci teggin di. doon ànd ak yéen ci émission bi ci seen rajo Risala Podcast wala Risala Podcast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 ثم الصلاة بعد والتسليم على النبي المصطفى الكريم